waaw soxna si maa ngi lay fay di la jaajëfal bu baax di jaajëfal bu baax équipe bi nga àndal euh, ak liggéey bu rafet bi nga xam ne koy def yaakaar naa yaakaar naa leen di gis seen liggéey am solo yi nga xam ne koy def ginnaaw bu ñu sant yàlla nag julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal Cheikh mun taxaa mu yàgg fi loolu ci ànd ku wér di ñaanal sama waajur di ñaanal soxna mun taxaa sama yaay di ñaanal mbooleem taalibe yi ak jullit yi ngir fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan wi soobee yàlla. ñuy faral di dégg euh, Gabon Gabon Gabon ñu dem ba Gabon bi sax ñu daal di la koy euh, te méngaleel di la woowee faf Gabon Gabon bi fan la jógee. waaw soxna si comme ni ma ko ni ma ko waxee rek ak ni ma ko yàgg di waxee mooy Euh, samay waajur ñoo nekkoon Gabon ma ma juddee fa ñu tuddee ma muntaxaa Ndiaye noonu lañ ma tuddee waaye bi yàlla dogalee nag ñu jébbal ma Cheikh Mouhamadoul Mountakha sama waajur joxe ma jox ma ko ci lañ ma tuddee Mountakha ci la ci lañ may dàkkantelee Gabon ndax turu Mountakha dafay xaw a bari ci biir kër gi léegi ba looloo waral turu Gabon Gabon bi ndax am na Mountakha Ndiaye kongo am na Mountakha Ndiaye Gabon am na Mountakha Ndiaye Mbul looloo waral turu Gabon bi ngir juddoo bi ma fa judd juddoo moo tax dàkkantal boobu di am. waaw xam nga ni mu demee mooy euh, dama nekk ci daara yi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu sama waajur jox ma ko ma yàgg fa jàng fi alxuraan euh, fa laa mokkale ba bind ñaari kaamil jàng fa xam-xam toog fa tamit jàngale fa bari ñoo xam mokkale naa leen foofu ci daara ji ci biir daara ji bu yàlla dogalee nag ma nekk ci biir daara ji. daanaka loolu lépp fa laa ko mënee muy lu jëm ci wàllu photo euh, ak lu jëm ci wàllu mm, horloger comme comme par exemple bu fekkee ne tey ji da nga am benn rajo bëgg poste euh, di ñëw yooyu yëpp daanaa ko def rajo bi horloger ba ci monter ay parabole parabolu télévision yi yooyu yëpp foofu ci bi daara ji laa ko laa ko mane ci ndimbalu yàlla ak ci baax Cheikh Mamadou Mountakha ak ak ñaanalam ci foofu la commencé photo yi foofu la commencé ci biir daara ji maa ma daan nekk ci biir daara ji bu ma rombee benn xale rek photo ko eh, booba kilise la woon ma dem sotti ko ñëw teewul ma boole ko ak sama njàng teewul dama boole ko ak lépp loo xam ne maa ngi ko def ci biir daara ji loolu moo foofu la photo yu jógee ak eh, lu jëm ci liggéey yi ma nii eh, bi ñu fa jógee nag Cheikh Mouhamadul Mountakha yóbbu ma tiib ndax dafay wax ne maanaam daara ji képp koo xam jàng ba mokkal daf lay yóbbu nga dem tarbiyewu ji moo gën a yokk sa sa xam-xam ak sa dundin euh, ndax boo dee foofu da ngay bay ca boobu mi ngi ma yóbboon tiib daara ji naan tiib mi ngi nekk ci ginnaaw Mbàkke foofu daanaka am naa fa lu mat ñetti at daan boole di bay ak di jàngale euh, ci daara ji comme ni ko baykat yëpp defee rek daanaa ko defee noonu bu ngoonee ñu gont dem jàngal xale yi suñu xayaat suba tamit dem ca tool yi foofu tamit fa la ma commencé lu jëm ci wàllu caméra yi caméra def ndànk-ndànk di filmer ay ay vidéo tamit parabole bi nga xam ne laa doon def pour yenn saa benn nit woo ma na ma defal ma nangam daan may jox la may jox su ma àgg ci daara ja ma am lu ma ci def loolu foofu la commencé ma tarbiyee fa ñetti at bay fa bu ma fekk na daara commencé woon naa faa def lu jëm ci wàllu sunu mooy di teg ay jàng bu ñuy jàng may rek lay rajo yi léegi nag bi jumaa yi daara bi nam ci mu xalaat ma ñëw fa pour pour pour téye ko looloo waral ma bi may dem am na ñu ma formé woon daara ja pour lu mel noonu bi ma ñëwee tamit rajo yi ma nekk fa di ko tegal foofu xasida ak alxuraan guddi ak bëccëg ak fajar gi foofu nag lañ commencé nag may commencé di filmer di jël déclaration yoo xam mooy jóge ci moom ak lenn ci ay photo alors pourquoi filmer bi ak photo yi ak bricolé don bu yàlla may la wala dafa yàgg nekk sa passion loo xamante ne ginnaaw jàng meek ndongo bi nga doon danga nga ko yàgg bëgg. Hmm. waaw xam nga euh, comme ni ma la ko maanaam nekkul luñ jàng ci ci nit maanaam dafa nekk luñ bëggoon la rek nekk ci topp ko topp ko. ba mu agsi ba fii tewu nag da nga gis dara lu la xaw a te tuuti nga mën a dugg ci YouTube xool ko ba ci matériel yi nga xam moom laay jënd yëpp lu lu ma ci bëgg xam rek damay dugg YouTube xool ko waaye comme defuma ci formation bi tax ñuy wax daal comme mm, formation dëgg-dëgg bu dee am na ci moom jamono jii mën naa am am na ci mooy def formation ci nii jamono ji bi ma bi ma voyagé nekk Paris euh, am na tuuti lu ma lu ma fa jàngaal waaye nag ci biir ci biir ci biir euh, diggante bi ma koy def ak bi sëñ bi toogee xalifa daanaka diggante boobu yëpp loolu moom jàngewuma ko ci kenn ba ci photo yi ngay seen yëpp ak vidéo yi ngay seen ndax si am naa benn site internet bu mag boo xam mi ngi Touba mi ngi académie mi naan yaakaar naa ñu bari xam nañ ko euh, tamit ci ci liggéey boobu la bokk ci lu jëm ci wàllu euh, photo yi waaye nag comme njàng mi mi ni nit ñi jàpp naa am na ci ndax yaakaar naa loolu kenn jàngal ma ko ndax benn mooy li ma ko wax faral di waxee souvent mooy alxuraan laa jàng jànguma tubaab même liir liir liir français bu àgg sax mënuma ko wala ma lakk ko waaye teewul lu ma ci bëgg a lijjanti dinaa ko mën a lijjanti ndax li jiitu sama xol la muy alxuraan karim. alors ñu tuddee la sëñ bi euh, comme ni nga ko waxee léegi euh, turandoo yi bari woon bañ dippee li nga xamante ne moom mooy Gabon mën nga ñoo wax un lan mooy sa relation ak nga xamante ne moom mooy sëñ Mountakha ci xalif. waaw euh, sëñ bi nag mooy mu yar ma nekk nekk loo ma ci li ma war a nekk. loolu boobu mooy relation bi nga xam ne laa ci njëkk wax mooy nekkloo gi ma nekkloo li ma war a nekk maa ko ci sant bu baax ndax wax dëgg yàlla euh, ni ma jàppee ak ni nga xamante ne moom moom la nekkee man wax dëgg yàlla loolu mbégte la ci man ndax lépp lu may def suba ba ngoon dama koy wax ci lépp loo xamante ne bi tamit sama diggante ak moom la dama koy def nekk ci li ma nekkloo daal loolu mooy relation bi nga xam moo ci moo ci ab solo. ba looloo waral daanaka euh, bi may bi ma koy ziare ji avant avant tabaski bi yaakaar naa su ma jumut leeral wax waxaal nañ ko waxaan waxaal ko ne ko ñii nga seen ñëpp ci samay employé lañ ci man lañ nekk ñu tolloog ay vingt personnes yooyu ci lii lépp seen baax la ak jàppale gi ma jàppale loolu rek moo waral loolu loolu am ak taxawaay bi ba fu may dem ak fu mu mënti doon dinaa ñëw wax ko mu dénk ma digal ma wax ma nan laa war a doxee ma doxe noonu lii may def tamit lépp lépp lu ma ciy def bu ma woon tey jii léegi-léegi bàyyi ko ma bàyyi ko su demoon tamit continuer ci ma continuer ci kon nag ci ndigal loolu laa nekk ba tey jii tamit jumaa ji sama rak laa fa bàyyi moom moo fa nekk moo yor rajo yi lépp loo xam moom itam ko fa su ma su ma ko yëgee damay dem defar ko lépp loo xamante ne war naa faa dem yokk ci matériel tamit dama koy def. alors ñu dem ba Gabo production nekk li nga xamante ne signature la ñu gën koo xam ci photo macha allah photo sëñ Mountakha yu rafet yi nga xamante ne buñ koo xasee ba génnee ñëpp koy ñëpp koy reprendre alors loolu ban yëg-yëg la la def ginnaaw boo xoolee parcours bi nga jot def yëpp en tant que ndongo en tant que euh, ki nga xamante ne moom mooy béykat. waaw xam nga signature bi da cee am solo mooy souvent damay wax ne maanaam bu dee photo sëñ Mountakha xam nga ñu bëri naan la da ko war jaay wala da war a def ay tableau di jaay daf ne xoolee affiche yi yëpp. foto mi moo ci nekk ca photo yëpp maak photo tey jii bu fekkante ne dama ko doon jaay ma wala ma wala kon sama tudd àgg fenn fii kon dafa am fu mu yem ma xam ne ab dongo daara laa boo xamante ne damay damay nekk daara ba fii ma wax ci nekk yilifu ma sama bopp kon am na loo ma koy def taalib yëpp laa ko bokkal maanaam waru ma nekk loo xam dama koy dama koy jaay wala ma koy ma koy def leneen ba ci vidéo yi nga xam moo nekk sama compte YouTube ndax bari na ay vidéo sëriñ bi ci nekk yoo xamante ne bi damay permettre site internet yëpp di ko jël maanaam amul luñ ci réclamer amul luñ ci ciy def kon loolu moom moo waral signature yooyu ngay seen yëpp ma koy def euh, benn ndax signature da ci am solo ndax nit ki boo foto sa foto mu leer na lii yaa foto war nga mën def signature même boo ko nit boo xoolee sa foto da xam ne lii yaa ko def waaye nag ngir baaxee ko taalibe moo tax mu benn page Facebook am doole boo xamante ne lépp luy foto boo boo demee foofu da nga ko fekk muy sëñ Muntaxa muy ci ay rakam mu yoon wi lépp bépp sëriñ boo xamante ne soxla nga ko boo duggee foofu da nga ko fekk ci nga xamante ne bii maa ngi dem maa ngi dem seen kër ndax yenn saa yi pour génne ko bu ko defee nit ñi xam ko bu baax a baax ca loolu da cee da ci nekk am solo ndax yenn saa da ngay soxla ay grand format euh, wala bu am photo bu am qualité image bu am qualité bu am doole doo ko am te boo demee ci internet bi yenn saa dafay xaw a fulo léegi nag boo ko amee tey jii daayira bi tey bu ñuy def ay ay poster dañuy affiche wala def badge dañ leen ko mën a jox loolu moo nekk sama initiative man ci sama liggéey maanaam photo boo xamante ne bi muy jumaa yu ñuy ubbi mooy daara ju ubbi mooy kër gu ñuy kër goo xam dañ koy dañ koy dañ koy euh, dañ fay jàngale ak donc daara yi maanaam lépp loo xam ne daal day rafetal yoon wi loolu ci laay xëy ci laay gont ci laa fas yéenee de incha allah. alors Gabon bu taxawee def parcours am xool parcours am euh, tey jii bu amoon conseil bu mu doon jox ndongo daara yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw peut-être am passion bi nga xamante ne moom nga am wala bëgg doon li nga li nga doon instant bi nii lan nga leen di conseil waaw xam nga mooy li may dénk ñi nga xam ñoo topp sama ginnaaw ànd ak man ci liggéey bi ci ñoom daanaka luy lépp luy liggéey lu koy doxal ñoom ñoo koy def ndax man daanaka li ma ci doon bariwut waaye dafa am équipe monteur am ñu def ay retouches am na ñoo xam traitement eh, image rek la ñuy def am na ñoo xam photo la ñuy def am na xam ne ne cadre la ñuy def souvent toujours dama leen di wax na leen maanaam nit ki am njàng dëgg la njàngantu waa am na solo waaye boo fexee ba alxuraan jiitu sa ci sa ci sa dënn loo bëgg a mën da ko man PMT mooy gën a góorgóorlu xam ne euh, nekk dong rek taxut a yaafus maanaam danga war a gëm sa bopp maanaam wone sa bopp comme ni ko tubaab ñu jàng tubaab di ko wone ndax fi am na loo xam mën naa ko ci photo wala man ko ci jàng tubaab dem jàng ko ci école ya def ci formation maanaam mënu ko ca loolu exemple yi bari man naa ko cee joxe ndax am na sa benn rek boo xam dafa jàng tubaab maanaam moom français rek la jàng man ma dem daara jàng bi ñu dajee ñun ñaar man maa ko ubbil Facebook ca moom yaakaar naa bu dee côté ba moom ci gën a xarañ ci côté liir bi ak yooyu waaye man maa ko ubbil ca boobu moom mënu kon nag loolu du caagin ne ki jàng rek jàng tubaab moom moom dafa mel nii wala ki jàng alxuraan dafa mel nii maanaam lépp a yem njàng mi waaye njàngu alxuraan nag moom moo war a jiit ci doomu adama bi. li nga xamante ni dafa dafa dafa ëllëgam lay seet kon moo tax man képp ku may digal muy ab donga euh, boo xam ne da nga nekk ci daara na nga gëm li nga doon ba pare gëm sa métier ca fas yéene nag lu ci liggéey ndax liggéey rek moo wóor gën a am pastef na fi ne man fi may waxee balay maa ngi ci daara ji coow li li muy rëy rëy rëy rëy maanaam yeewuguñ ma wàccewuñ ma ma nekk sama yëf bopp maanaam ba tey maa ngi ci loxo Cheikh Mouhamadou Mountakha biir këram falaa falaa nekk falaa am nekk falaa am lépp ba fi ma wax yow daanaka su ma fàttalikoo sama waajur daf ma ko may kon wàccagu ma waaye nag gëm sama gëm-gëm bi ma ci am ak Pastef bi loolu moo may li nga xamante ni mooy li ñu ñëpp tudd ca loolu dama koy sant yàlla di ci di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd wér di ñaanal tamit Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadir moom it ci taxawaay bu am nga xamante ne moom it wax dëgg yàlla taxawu na ma ci liggéey bi lépp loo xamante ni mi ngi ci yaakaar naa dinaa ci dama ci bàyyi sama waar ci ci liggéey yu am solo yi nga xam mi ngi koy def ci ci dëkk bi di ko def ci yoon bi moom it jàppale ma bu baax baax ak soxna Bally ak yeneen kilifa yi nga xamante ne damay jëflante ak ñoom mënoo tudd ñëpp ca loolu ñoo ma ñoo dooleel ci li ma nekk taxawu ma ci taxawaay bu ma sëkk boo xamante ne bi euh, nit ak waajuram doom ak waajuram euh, mi ngi koy taxaw waajur mi ngi koy doomam loolu lépp yaakaar naa euh, ñoom ñu ngi ci. Taxaga bon ñu ngi lay jaajëfal. waaw soxna si maa ngi leen di sant bu baax di sant équipe bi ak wax dëgg yàlla yow mi nga xamante bi bii dëgg barki dem bale yaa ngi may woo wax dëgg yàlla bëgg seq ak man waxtaan ca loolu maa ngi koy rafetlu bu baax a baax di wax ne loolu dafa am solo nit ñi souvent dañuy wane ñi nga xam ne dañ leen war a wane ñu ay ay génn leen ñëpp xam kenn ku nekk ci ci ci ban ban ban ngay def référence ndax dafa am solo ndax ñun boo xoolee ñun suñu référence mooy ñi nga xamante ne bii ay dongo daara lañ pare yor ay entreprise yaakaar naa joxe ci ku mel ne Serigne ak ñeneen ak ñeneen ñun ci ñooñu la ñuy xool pour jëmale réew mi kanam fas yéene euh, wut ay employé ndax fi yaakaar naa li ma employé ay xale bari na kon yaakaar naa loolu lu ma lu ma lu ma gën dem dinaa gën a def ay formation yenn xale yi kenn jàpp ci bari na ñoo xam jàng naa leen photo fii ba bañ mën a photo di dem ci ay programme ci ñoom bu ñu demee ëllëg mën na yor seen bopp yor seen waajur kon loolu rek mooy jubluwaay bi di sant bu baax di ñaan di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ko wér asalaamaaleykum wa rahmatullah